fii may waxee ak yéen démb ci suba maa ngi yeewoo Bakel laata Bakel Linguère laa yeewoo laata Linguère Ndar demoon ba Waalo jóge foofu bi ma jógee Bakel dem Kidira dem Goudiri dem Tambacounda dem Sinthiou Malem fanaan Kaolack tey laa fa xëyee daanaka ci tisbaar laa fa jóge yegsi si fii ñëw ci saal bi pour waxtaan ak mbokki senegal donc dugg naa ci réew mi waxtaan naa ak waa réew mi seeti naa leen fa ñu nekk. ndax du rek sénégalais yi ci dëkk yu mag yi la ñu waroon déglu wala la ñu waroon wax ak ñoom mais fépp fu sénégalais nekk da nga war a déglu message bi dégg message bi xam message bi topp ko ngir buñ ca yeggee nga mën koo tànn may gërëm mbokk yi nga xam ne dalal nañ ñu may gërëm mbokk yi nga xam ne euh, gunge nañ ñu may gërëm mbokk yi nga xam ne jàppale nañu ci lii ñu doon def ci seen i xam-xam ak seen xalaat may gërëm ñi nga xam ne yëkkati nañ seen alal ci nu mu mën a tollu dimbale ñu ko pour ñu mën a def boobu liggéey mbokk yi réew mii nga xam ni Sénégal la situation politique bi ñuy dund moom la ñuy wax ci tubaab situation bu exceptionnelle élection bi normalul candidature yi normalul processus bi normalul datu élection bi normalul jamono jii ñu koy def ci weeru koor te noon koo def depuis le 25 février jamono ji normalul sénégalais yi sonn ci tàyyi ci ay nit ñu jàpp leen ci tëj leen ci kaso yi lu yàgg ñu bàyyi seen njaboot te defuñu waxuñu loolu nag bu ma ci demee gis ñi ci sacrifié wu muy ku mel ni Ousmane Sonko di suñu mbokk ñu jàpp ko tëj ko di Bassirou ñu jàpp ko tëj ko ak ñi ñu àndal ñépp jàpp tëj leen sacrifice boobu ñun ñi nga xam ne demuñu ba yegg foofu beneen sacrifice bu ñu mën a def pour lii sotti buñ ci yeggee rek war nañu koo def te ñu teef benn calcul loolu tax na mbokk yi gannaaw ba ma demee waxtaan ak ñi ma war a waxtaanal ñépp ñi ma war a diisool ñépp rawatina ci président Ousmane Sonko mi nga xam ne démb ci guddi rek waxtaan nañu gisee rawatina ñi ñi nekk suñu plateforme politique avenir Sénégal bu ñu bëgg te di ma gunge te ñi ëpp ci ñoom lii may def ñoom sax ñoo ma ko yàgg digal ni ma mooy li gën ci réew mi ak mbokk yeeg am di jàmm yépp yi nga xam ne ñu ngi suivre ñoom ñëpp gannaaw ba ma waxtaanee ak ñoom dama décider incha allah élection yii ñu jëm muy le 24 mars 2024 ma woote képp ku ma toppoon képp ku ma déglu képp ku ma comprendre képp ku lu dégg li may wax te ma doy la nga jàpp ni fu ma féete. du du du am lu ñàkk fayda fu ma féete du am lu doyadi fu ma féete du am lu xeebu ku ma topp ci ginnaawam jàppale ko war ngeen mën a gëm ni kooku am na lu ma gis ci moom lu ma doy ba man koo def kon nag maa ngi ñaan képp koo xam ne dégg nga ma déglu nga ma te nga jàpp ni sénégalais yi sonn nañ ci coono boo xam ni coono bi lu mu gën a gaaw a jeex rek moo gën nga ànd ak man ñu choisir tànn et voter Bassirou Diomaye fay Faye le 24 mars bi ñu jëm incha allah mu gagné dès le premier tour sama candidature donc du ko continuer bu leen ma voteel man